Merci beaucoup. Donc euh, aujourd'hui, le conseil municipal de Morlan s'est réuni pour deux points essentiellement. C'était pour d'abord euh, valider en tout cas le plan d'action 2020-2024, le plan quinquennal, donc euh, PDC, plan de développement communal 2020-2024. Ça a été validé avec quelques corrections, mais on peut retenir le montant de presque 2, millions, 2 milliards 500 millions ont été retenus donc pour le le plan d'action donc d'ici donc 2024. Ça a été retenu aujourd'hui. Donc de ça maintenant nous avons aussi voté le budget pour l'année 2020. Donc ça c'est opérationnel maintenant. Donc 2020 nous avons effectivement voté le budget et ça a été presque voté à l'unanimité parce que il n'y a presque pas eu d'intervention. Bon, nous on a joué le jeu pour que ce ne soit pas une semble de d'enregistrement, mais en réalité les gens n'avaient presque rien à dire parce que tout était clair à notre, à leur niveau. Je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, le budget était à la somme de 994 euh, euh, Parce que là, quand même, il faut reconnaître que le fonctionnement pratiquement ne représente que 17%, que ici, et eh eh même a, beaucoup, a des investissements. Parce que quand, quand même on, on dit on Ça, c'est un investissement que nous pour que les jeunes, voilà, les femmes, les élèves, ainsi de suite, puissent formation, mais aussi pour que la pratique du sport se fasse à Morolan. Revenez un peu comme d'habitude. Quand même, a jeunesse, sport, culture, ça, quand même, parce que si, si vous voyez dans le budget, sur les 400, presque 98 millions des investissements, il y près de 200 millions qui sont prévus pour des investissements, des infrastructures de sport, d'écoles, de, de, etc., etc., Donc, euh, plus parce que rien que les, les, les, la tribune, c'est quand même 158 millions. Donc, il y a aussi des salles de classe, il y a des murs de clôture qui représentent presque. Essentiellement, c'est la jeunesse, c'est l'éducation, la jeunesse et les sports. Bon, il y a surtout ça. Monsieur le maire, voter un budget est une je, suis, informe que la commune de Morna quand même est nominée pour le concours euh, organisé par le ENDA Ecopop. Donc on sera primé le jeudi prochain la fiscalité. sur la fiscalité. C'est pour dire que la commune de Morla a mis en place un bureau de fiscalité qui fait quand même entrer beaucoup d'argent dans la commune. Je pense que ça, quand même, ça a été Euh, ça, ça, été en tout cas bien noté par les, le jury la dernière fois et le jeudi prochain, on va recevoir notre prix. C'est pour dire que c'est vrai que en matière d'efficacité budgétaire, c'est ça souvent le problème. On vote un budget, voilà, des millions, des milliards, mais souvent pour faire entrer l'argent, c'est un problème. C'est pourquoi on a pris le risque de mettre en place un bureau de fiscalité avec des jeunes cadres de Morlan que nous avons recrutés pense que c'est en train de faire un, ils de faire un commune de Morlan. Et quelles sont les sources de, de Bon, c'est essentiellement, c'est l'impôt fiscal par exemple. Ça par exemple, c'était presque, il y avait presque des gens de Moran ne payaient plus la taxe solidaire. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, avec quand même le, bureau de fiscalité qui fait quand même du porte-à-porte, qui va vers les qui rencontre les chefs de village, aujourd'hui, les de Moran sont en train de payer quand même l'impôt fiscal. En plus de ça aussi, quand même les gens sont en train de voir nos réalisations. C'est motivant de voir que la commune en train de faire de choses. Donc les gens, sont motivés aussi à payer l'impôt minimum fiscal. Autre chose maintenant, il bien sûr les carrières, les frais de bornage, l'autorisation de construire. Quand on est venu, on l'avait trouvé à francs. Aujourd'hui, pour, construire à Morlan, il faut payer donc ça quand même, c'est pas facile. mais quand même, y a eu des difficultés au départ. Mais Parce que quand nous, on achète 10 millions de fournitures, c'est pour les élèves. Quand on construit un stade, c'est pour euh, les jeunes. Donc, ce n'est pas de l'argent qui entre dans nos poches, mais c'est de l'argent qui retourne vers eux. Ça, je pense que c'est quand même une sensibilisation qu'on est en train de faire. Et nous pensons que ça va aller crescendo. Je pense que nous pensons que le budget de Montland doit dépasser maintenant les, milliards. On en tout cas, se comportent comme que ça avance. Il y a ici le problème d'accès à l'eau qui a été posé. Oui, d'accès à l'eau. Et là, je pense que c'est l'occasion, mais donner quand même de clarifier un point. Parce que même euh, l'État du Sénégal a, tout a euh, créé une réforme, la réforme sur l'eau. Je pense que vous tous étiez là. Cette réforme, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dissous les, les agiforts, associations des usagers du forage. Et aujourd'hui, l'État a créé ce qu'on appelle Office des forages ruraux, OFOR. Donc tous les, tous les forages ont été versés dans le patrimoine de Ofor. Donc l'État a voulu faire la même chose, son SDE, ce couplage-là. Donc c'est Ofor qui a maintenant le patrimoine, mais Ofor a signé avec des privés. Dans la région de Thiès, c'est Aquatec. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Nous, on est en de nous battre. On a même fait à Aquatec des propositions concrètes. On leur a dit qu'on est prêt à investir pour vous, pour que les populations mondiales Par exemple, on leur dit par exemple que y a, si le, la pompe n'est pas bonne, on change la pompe. La commune décaisse 3 millions, achète une nouvelle pompe. Il aussi le forage de maraîcher qui est là-bas, qui est sous-utilisé. On leur avait demandé d'entrer en contact avec ANIDA et le GIE pour signer une convention pour que ceux-là leur vendent de l'eau. que qu'aujourd'hui, ce forage est sous-utilisé et la connexion est déjà faite. Il y même un, un compteur qui est pour moi, il n'y fait par Aquatech. je pense que la première étape a été franchie hier. On a adressé une lettre au ministre de l'hydraulique pour lui faire part de la situation. La prochaine étape, c'est quoi Si rien forage. Voilà, nous, on peut, nous de gérer notre forage. La commune de Morla est capable de gérer son forage. Si Aquatec n'est pas en mesure de gérer le forage, nous serons obligés de reprendre notre forage. Et ça, je pense que l'État ne, ne s'y opposera pas. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm ci seen teewaay di gërëm aussi waa Morlan mais di gërëm surtout le sous-préfet de Pambal madame Bari chef CADL donc c'est pour dire que ñun dañoo woote woon tey parce que ñaari ponk ñoo taxoon ñu daje fi tey euh, da d'abord dañu doon xool wala parce que dañoo amoon benn tëralin bu 2015 ba 2020 ba 2019 2020 donc comme boobu mu ngi jee ñu indiwaat beneen tëralin boo xam ni day wax lan nañu war def fii ak ci biir Morlan fii ak deux mille vingt quatre te loolu consultant bu xam ni mu ngi jóge Kayel moo ñëwoon consultant boobu aussi def na tour dëkk yi yëpp waxtaan ak ñëpp depuis dix mois mu ngi def liggéey boobu. dafa ñëwoon tey pour delloo ñu liggéey boobu ñu seet lan la ci am gàllankoor mais finalement donc nangu na nangu nañu euh, loolu maanaam ponk boobu bi ci dégg tegu maanaam mooy budget bi budget bu xam ni maanaam mooy xayma loo xam ni war nañ ko def ci as commune Morna déwén. balaa ngay xayma nekk li ngay def da ngay xayma d'abord li nga war a am donc gis nañu ni. commune Morna boo xoolee tey budget bu ñu fa tey dërëmu kenn nekku ci presque xaalis boo xam ni dañ ko yaakaaree rek tibbee ko biir am ko biir Morna loolu nag dañoo créer depuis deux ans trois ans benn bureau benn bureau boo xam ni seen liggéey mooy rek seet fan lañu war a def ba xaalis dugg ci biir commune bi budget loolu effectivement vraiment ñu ngi def seen liggéey ndax boo xoolee ci wàllu lii dugg ci commune bi vraiment ñu ngi dugg boo xoolee sax bu njëkk bi ou bien am na at ci ginnaaw waa Morna presque faytu ñu taxe daal mais ak bureau bi vraiment nit ñi ñu ngi daaw rek am nañu parce que juróom benn million ci wàllu fay boobu te am nañ yaakaar ni day yokku day yokku day yokk rek te ay day leen ni tamit ñu ngi yokk parce que boo xoolee bi tamit am na loo xam mu ngi koy dugal ci biir bi ay sel ay taxe yoo xam ne patate amatul mais patate boobu am na loo xam ne ni dañ ko transformé léegi ñun dañ ñu ngi koy jot kon ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan yàlla en tout cas euh, li ñu xayma tey ñu am ko ñu am ko parce que bureau boobu sas nañu leen maanaam mooy nañu fexee ba lépp lu ñu des tey ci wàllu dugal xaalis ñoom nañu fexe ba lu xaalis boobu dugg. kon Morane def na ay jéego yu am solo waaw ñun vraiment côté boobu ñun dañoo comprendre lan mooy décentralisation décentralisation tekkiwul dara lu dul naa yor leen seen bopp pour nga mën yor sa bopp nag bul xaar état indi da ngay jóg sa bopp ut ay pexe ni ngay fexee ba waa dëkk bi seen bopp ñoo war a euh, dugal xaalis d'abord balaa keneen di ñëw loolu moo tax je pense que. Euh, ñun loolu la ñuy def mu nekk nii bureau fiscalité mu ngi def sensibilisation mu ngi dugg ci nit ñi mu ngi fexee ba képp ku war a fay mu fay même les grande entreprises ñu ngi dem ay Dangote ñu ngi dem ay fépp foo xam ne daal. carrières yi ak yëpp képp ku war a fay ñu ngi fexe ba mu ba nga fay. te loolu je pense que suñ ko defee commune bi dina autonome financièrement te foofu la bëgg dem donc vraiment ñu ngi en tout cas gërëm waa bureau fiscalité moo tax d' ailleurs je pense que euh, LMS bii di ñëw voilà ñun. bokkoon nañu benn concours boo xam ni waa ENDA ECOPOP ñu ngi ko doon def te ñu bokkoon groupe fisc maanaam euh, efficience budgétaire maanaam ñii xam ni ñu ngi tawa taxawal ay budget mais nañu fexe ba seen budget bi non seulement day day kawe mais dañu fexe ba loolu lu ñu lu ñu prévoir ñu def ko lu ñu waajal ci budget bi ñu def ko mais balaa ngay waajal da ngay dugal xaalis bu dugalee xaalis léegi di nga soog a def te ñun gis am gis nañu ni ci ñetti communes yi gën a xarañ ci fànn boobu jël nañu leen xamaguñu ne kan mooy nekk premier kan mooy nekk deuxième kan mais ñett daal bokk nañ ci donc ñu ñaan ko yàlla ñu gërëm ko yàlla mais aussi ñu gërëmee aussi la le bureau de fiscalité ak waa Morlan yëpp ba sa buñu ñoom bu ñu fañ bañoon fay par exemple boo xoolee tey ñun dañ doon fay autorisation de construire ay 3000 francs mais yéegal nañ ko ba mille juróom-ñaari junni te loolu waa Morlan jëlbe mi sax amoon nañu doon bañ mais nit ñi seen bopp xam nañu léegi lépp lu ñuy dugal ci commune bi day delloo ci ñoom ndax ñun vraiment xaalis bi dañoo nekk fi pour saytu rek mais lépp mais commune moom bu ñu koy wax nit ñi ñoo war a njëkk a dugal état soog ñëw yeneen ONG wala yeneen partenaire soog a ñëw vraiment gërëm nañ ci yàlla am nañu yaakaar ni euh, budget Montrolland moom day gën a jëm kaw rek. Euh, waaw wàllu ndox mi moom mooy problème mooy suñu problème mais malheureusement nit ñi as sax askan bi du xam ni wàllu ndox mi suñu yoon nekku ci. même si ñun ñu ngi def lu bari ci ndox mi parce que dañu gis ne ñu ba ñuy bañ maanaam coono surtout jigéen yi seen coono boobu ak aussi même famille yi parce que am na ménage yoo xam ni bés bi yàlla sàkk dañuy fay 1000 2000 francs pour ñu am ndox dañuy loué chalet jël jënd ndox loolu mënul continuer comme état maanaam moo ñëwoon mu ne léegi tas naa asifor yi dënk naa maanaam forage yi OFOR office des forages ruraux état bi tamit maanaam OFOR boobu ñëw aussi tànn na ay privé lëkkaloo ak ñoom signé ay convention ñu ne léegi jox naa Aquatech région de Thiès mor naa bokk ci région de Thiès bi Aquatech ñëwee fii lañ defee réunion bi ñu vraiment ñu amoon ci yaakaar bu baax waaye suñu yaakaar fu mu mu ngi tas parce que quand même quoi population bi non seulement ñun amuñu sañ-sañ laal ci forage bi mais population bi ñu ngi ci coono bu metti donc loolu nag mënul continuer ñu ngi ñaan état bi tamit mu jël matuwaayam soit bind nañu démb ministre de l'hydraulique pour que voilà Aquatech na def liggéeyam ak OFOR su fekkee mu ñu def seen liggéey nañu delloo suñu forage. forage yu Morna commune Morna mën na ko yor commune Morna mën nañu yor forage yu Morna suñu bu dee état bi tamit deful loolu loolu la ñuy par exemple prochaine étape bi maanaam bu dee dara amul dañuy laaj ministre bi wala état bi nañu yéen delloo suñu forage. waaw ah, maire waxoo waxoo ci wolof montant budget quinquennat ak axe prioritaire yi. waaw budget bi euh, euh, budget bi effectivement bu ñu ko xaymaa nekk na presque milliard bu manqué tuuti rek parce que bu manqué ñaari fukki junni daal donc manqué na tuuti mais surtout. boo xoolee aussi ci wàllu euh, cinq ans yi di ñëw juróom at yi di ñëw suñu budget bi maanaam boo xaymaa lépp lu ñu war a def nekk na presque ñaari milliards ak genn wàll loolu du ay investissement yoo xam ne dañ ko def ci biir commune Morlan ci wàllu jàng mi priorité bi parce que jàng bi moom mooy mooy priorité ak jeunesse bi parce que foofu pour tabax élégu Morlan foofu la ñuy def xale yi ak ndaw yi je pense que loolu foog ñu réussir politique boobu suñu ko réussirul ça veut dire que Morlan ëllëg yàqu te loolu aussi c'est valable pour